di Balla Gaye numéro 2. wallaay ndeysaan. te Tapha Tine fi may wax ak yéen nii. Mm. wàcc na aéroport ba gaa yi noonu jëli ji nañ ko. am na benn vidéo bu xaw a rëcc nii léegi bu ma dal léegi mais xaaral a xoolaat ndax yaakaar naa ne léegi nii balaa laaj bee jeex naa xam naa ne dugg si Tapha Tine naa ko am ndax gaa yi nii aéroport. cay. ah borom saa kànde yaakaar naa ne daanaka agsi na ci réew mi te léegi. borom rastamaan boobu ñëpp xamee nañ ko Tapha Tine. Hmm. kooku rakam la Ndiaye Tine. gaa yi noonu di xaar am muy loo xam nii réew mépp a ngi koy euh, hmm. nan la war a taxawee ci kanamu Balla Gaye 2 mi ko daanoon. Tapha hmm. Tine nan la war a réagir ci kanamu Balla Gaye numéro 2 mi ko daanoon. Tapha Tine Balla Gaye da koo daan mu daan ñetti mbër yi daan Balla Gaye numéro 2 daan Boy Niang. dan daan Bombardier daan Eumeu sen barki démb ñu ñu boole leen ca TFM Balla gay wax ba taxaw ci kaw bopp tafati te lolu dox. e eh, gay ma leen di man damay dugg de ngeen. man dar bul da way jere jere alaaji buur alaaji buur ñëwal ci loolu. xam nga sappali barki dem dama fex ben wax bu nakare deg moy lan. ko ci baagare sportif de haut niveau. dama ni ponkal muy def plus de trois cent trois mètres trente nangam dama lu mel ni Eumeu ci deux mètres nangam waru ko mën jële ci ay ku ci kaw ba mu góor loolu c'est anormal maanaam c'est impardonnable ci borom taay bu bu ni Eumeu Sène ak taay bu toll ni Tapha lan laa bëgg expliquer foofu mooy Tapha doole bi bari na njàmbaar gi bari na mais dafa am benn manque de caractère bu muy incarné ci biir géew loolu laa d'accord muy benn ñaareel bi Tapha da yéex a dugg ci combat defe dim jël yëpp ci noonu la ko jëlee mooy da yéex a ci combat te Balla Gaye mi ma gis tey armeelu Yoff si samay bët may ma ko man rapidité la liggéey pour mën a moom yaramam ba mën di dugg ci gaaru tafaatin di génn yaa ngay dégg sàppali maa ngi lay dégg bu baax buur lay dégg bu baax yoru laa donc la may bañal Balla Gaye 2 bu amee lu muy moytu ci combat bi dafay jàppante bi la warte la warte admettre ci combat bi ndax tafaatin doole ji dafa bari mais il faut que ma gis tey l'image de tafaatin nan la mel est-ce bi daf ko yokk est-ce que dafa confirmer vidéo yaa ñu wane woon wala est-ce que dafa diminuer masse am parce que li ñu doon déplorer ñu doon analyser yëpp mooy tafaa dafa war a liggéey ni ko Bakary di waxee sax baatu français boo ko doon wax Bakary euh, dafa war liggéey souplesse maintenant ñun ñëpp gisaguñ ko dañ koy xaar ba gis image am comme ni ñu gisee image Simba mais Balla Gaye mii ma gis hmm. abordé na à la Modou Lo pour mën a bëri c'est le 4 mai El Hadj Sappali alaaj sàppali buur looy ragal si mbaa le lion d'Afrique lu bëgg da nga jàpp ne Balla Gaye numéro dafa ñëw pour trouver waat boppam ci làmb bi laay toog na ci dara mais ndax mën naa pénétrer Tapha Tine xam nga Tapha dama wax ni tey bu saajo yàggoon ak jaar bu lépp jaaroon coocoy Tapha Tapha Tine être le roi des arènes donc lan la manqué qu'est-ce qui se passe. man day buur saako toog naa ba jàgg ne Tapha Tine bu daanee Balla Gaye numéro 2. jeex na de. jot na ñu ko le roi des arènes. man bu boobaa du ma. waaye bu ko Balla Gaye numéro 2 daanee lan la ñuy wooyee Balla Gaye numéro 2. ah Balla Gaye 2 <laughs> bu ko daanee bu ko daanee xanaa kay bu boobaa nag ñu xam nga ñu wuti beneen xam eh, eh, maanaam ba ñu tudd tuddee woon sa kaasulu moom rek lañ ko war a tuddee. waaye <laughs> sàppale. waa buur bataille psychologique bu tar am na ci combat boobu. no fi may wax ak yow nii. Mm. maa ngi leen di waajoon vidéo bu doy waar Alaaji Bakary Sakho. waaw jàkkaarloo Tapha Tine Balla Gaye numéro 2 loo ciy xaar. ci côté Tapha Tine ak Balla Gaye. mooy ma Bakary yow Fadam. Euh, sama kilifa woo na ma. maa la ko ñaan ah, kilifa Bakary. damay ñëw ci état de ah, forme. xam ay moom ay daa guddul dara kon sa naqalaalu asi bonne chance Bakary jërëjëf nuyu ma sa jabar. sëñ buur buur il est spécial. Euh, alaaj Fadam ah, alaaj Fadam bu mu ci état wu physique gu Balla gay Balla Gaye mi ci cinquante deux pour cent. cinquante deux. barke mm-hmm. Sénégal des fois dañuy analyser ñun des fois bët la ñuy analyser. wallaay da dafa am dafa am liggéey yoo xam ne nii liggéeyu intérieur la am liggéey yoo xam ne nii liggéeyu extérieur la. Mhm. léegi nag boo dee def musculation dafa am ñaari phase. phase bu njëkk bi mooy phase u intérieur mooy phase bu njëkk bi. phase bu mujj bi mooy phase u extérieur. léegi làmb bu catee mu leer la la amoo temps entraîné en général pour nga tiital sa adversaire da ngay da ngay liggéey da ngay liggéey ci phase u extérieur. Mm-hmm. bu fekkee ne da ngaa bëgg tiital sa adversaire bu leeree ne amoo temps wu entraîné wala amoo ñu la dangay liggéey ci phase u maanaam lu nit ñi di gis ak seen bët loolu mën naa tiitaloo sa adversaire mm-hmm. waaye bu fekkee ne Balla Gaye li muy def jamono ji nii Balla Gaye avant muy génn Sénégal da doon def cuir maanaam wàññi poids rey graisse rey graisse boobu noonu bi ñu demee INSEP da koo continuer boole kook entraînement base bi nga xamné ni day defaraat tànk yi defaraat loxo yi defaraat biceps yi défarat dos bi defaraat lat yi yooyu yëpp da koy defaraat benn benn. kon dama lay wax né la nit ki bo déggé ñu naan 100% 100% existé wul ci nit 80% vingt existé moy da ngay def 50% muy intérieur benen 30% bi extérieur lay doon carrément. donc bul fàttali ne Balla demul INSEP pour def musculation kese daa dem INSEP dana def cuir wàññi poids def plan lekk bu mu war a coob def programme bu lutte def programme boo xam ne ni mooy dem ci type de musculature am kon Balla Gaye bi gis nii tey dama lay wax ne la man personnellement bu fekkee ne damay suivre sport dëgg-dëgg laa lay mën naa ne Balla Gaye tey man mën naa ko jox cinquante deux pour cent cinquante quatre cinquante cinq pour cent léegi Balla Gaye bu delluwaatee yeneen deux mois yi un mois yi demi yi Balla Gaye mën na dem ba toucher à soixante quinze à quatre vingt mais quatre vingt c'est impossible mais à soixante quinze pour cent Balla Gaye mën na cee yegg léegi bu ñëwee Sénégal nag ba ci suuf si mu mu mu doggali la mu war a doggali nappali la mu war a nappali bu dee Moustapha yor na poids bi yor na taay bi mais alaaji Fara lamb mobile moo koy def faw nga mobile faw nga mën a déplacé wu faw yenn loolu yombal maanaam tafaatin d'accord pare na am na doole punkal na jool na mais bëre gita ngaas moo koy def déplacement mhm. bëre déplacement

waaye bu ñu xoolee Tafatine ci ay dernier combat am contre ñoom Boy Niang yooyu yëpp pois bi muy indi poids bi muy toog da ngay gis ne papa Tafatine pour mu bëri bëri bi mu war a bëree sax pois bi da ko koy xañ xam-xam bi dafi dafay nekk mais poids bi dafay xañ yenn déplacement yi ak yenn mouvement yi boo xoolee ci biir bëre am na fu ko Boy Niang dóoree mu xaw a rëpp loolu war a jugaat foofu noonu Boy Niang bu accéléré wala luñ ci kaw bu yàgg kon yéexaay bi Tapha Tine war na ko éviter ci combat bi combat bi combat wu étincelle la war a doon combat bi combat wu explosivité la war a doon ci côté Tapha Tine ak ci côté Balla Gaye combat wu la war a doon mais alaay fanam bu ñu demee ci côté mental xam-xam ñoom ñaar ñëpp ne Balla moo dàq bëree Moustapha Tine waaye dama ne la Moustapha Tine mooy gën a ëpp coffre Balla Gaye di doon benn ndax Balla Gaye muy wuti nii lu bees la luy duggaat ci yaram kon dafa am abs de temps bu mu koy may ndax ndax da koy may dix minutes ndax da koy may quinze minutes ndax da koy may euh, six minutes ndax da koy may huit minutes ndax Balla Gaye xam na système de respiration bi mu war a respirer bu jàppee nu mu war a def nu mu war a def bu waree dóor est-ce que dafa war a respirer foog yooyu yëpp ay coachum incept war nañ ko mën a xamal ne ko ni ñu la programme ci préparation bi nii nga war a def moom la ñuy woowee alternative xeex dafa am yoon bëre dafa am yoon fooy defee effort ak foo defee effort. mais sànq ku si da nga benn baat boo xam ne nii ci sportif au niveau yi laa gis ñu leen ko doon defal te en général dama gis ne da nga ne Balla Gaye numéro 2 dafa dem INSEP de Paris ñu kiwil ko. kiwil mhm. bi Balla Gaye numéro 2 bi mu demee INSEP de Paris ñu kiwil yaramam. Mhm. dañoo posé wu ci deful musculation mais def na physique musculation def na liggéey na crossfit genre yooyu daal comme daal moom li li nga xam ne nii muscle yi bañoon lañ gënoon concentré wu pour yaram bu la bañ a nangu. dafa mel ni ci loolu. non mais sénégalais yi ñoo doon wax ne yaramu Balla Gaye nanguwul nanguwul nanguwul sénégalais yi ñooy wax loolu. Mm-hmm. alaaj Fadam euh, boo déggee ñu naan cuir gars yi pour gars yi xam boo déggee ñu naan cuir gars yaa ngi ree naan cuir mais dama leen expliquer seen ñàkk a jàng ak seen ñàkk xam ak ñàkk xam méthode ñun bi ñuy utiliser ci entraînement moo tax xamoo leen lii alaaj Fadam wax loolu la cuir boo ko déggee mooy brûler graisse graisse boo ko dee brûler foog nga togg ko cuir mooy nga loo togg. tuur mooy togg toggal graisse gi mu mu fondre foofu xam-xam la ñuy waxee donc comme li may wax rek da ngeen di ñëw soxla soxla consommation wu fadam toog fii ñàkk fu la ñàkk fayda waaye di di di bind yoo xam ne ñi amul bopp amul génne toog leen fii ngeen déglu li ngeen soxla ala kulli ali ngeen di mer lépp fii ngeen koy déggee kon toog leen ngeen muñ tey sànni ay kër à la place ba ngeen wax ji naqare ji bu ñu leen woon léegi nga ko ngeen commencé di jooy loolu wax

c'est ça foog foog ngeen foog ngeen ñëw màgg màgg màgg màgg tuuti ngeen xamoon xam doon doon un peu intellectuel mais yéen bu. ndax mbàkk kiir boobu kiir boobu kiir boobu. kiir mm-hmm. boobu Moussa Fall laa dégg moo ko. Mm-hmm. moo tax bi nga mu ne Moussa bi Balla Gaye demee interview premier interview bi njëkk a def bi ñu waxee dana mm-hmm. Balla Gaye numéro 2 ñu kiwiir ko moom moom lañ gën a séddu ci moom ma ne waa mais man lan mooy kiwiir man tamit. moo woo benn course woo ko laaj ko mu ne ma cure mooy lépp lu nekkoon ci yaram bi pour ñu jéem koo changé indi wax ci lu bees. mais c'est ça da ngay wàññi graisse wàññi lépp lakk graisse bi lakk lépp. mais man mais man Bakary. Mm-hmm. Tapha Tine doole ji nekk ci moom doole ji nekk ci moom. Mm-hmm. sànq ba léegi maa ngi dégg yaa ngi dugg côté mobilité bi ak coté vivacité bi ak coté yëpp mais man li ma mm-hmm. jaaxal. dafa mel ni su ma la déggee Tapha Tine bëggoo mu jël poids ci contre Balla Gaye numéro 2. noo baaxul. bu Balla bëree capax capax rek du baax ci moom. Eh, alay faram alay faram barki Serigne Touba la wax ba mooyul ma Balla Gaye bu pare dalay lekk ci xam-xam lekk la ci làmmiñ ba pare na laa lekk ci biir gi bu leen fàtteel jikko jikko borom pax nit nag mën ngaa wàcc sa yoon mais gis nga bés boo jamaatee ba sant est-ce que nit mës naa sentir ne eh, xam nga tafatin yàgg naa santir moom mooy kat mais toujours le côté faiblesse bu ko doon gars di moi moy côté jàppale wuñ ko ah côté mental bi Balla mais bu gars di ci lolu bu gars di joom ci Si on ama bal de mentalam da ko changer. bay de ci lu dafa changer bo bëggee dégg dëgg daal fa combat Balla gay mustapha Tine ku ci a physiquement combat ku ci gën a am cardio yaa moom combat mais dama seetlu sa communication kon Tapha Tine deux mois yi mu desee lim soxla mën na ko amee Sénégal mais Balla Gaye numéro deux lim soxla mënu ko amee Sénégal il faut Paris. non mais est-ce que Balla Gaye bu ñëwee Sénégal dana dana respecté dana respecté programme bi c'est que Balla Gaye problème discipline la loolu alay fadam gëwëñ Balla Gaye bu fi préparé booy ñaa problème discipline lay foofu après ay blessures yoo xam ne ni fem nekk ne du fa blessé lutax parce que continue koy suivre dañ koy suivre amul teud ba guddi naan ah sama yaram da laaj Andre nga def entraîner jiwaat ñëwaat forcer bop gañ sa bop pour lan ay professionnel ñoo yor xam heure bi nga wara entraîner heure bi nga wara reposer heure bu nga wara teud teju sa biir ne tabatine ay professionnel ñoko yor tabatine ay professionnel ñoko yor do deg tabatine da gañu de c'est rare ngay deg tabatine gañu ay professionnel ñoko yor tabatine do ko deg mu jambat ndig do ko dégg mu jambat genou do ko dégg mu jambat loxo wala épaule mu ngeen dégg tafa ci jambat yoy te mi ngi doon presque 2 mètres musul am problème bob kon dal lan nga lay lan ngay xaar ci ñom ñaar arène nationale dimanche suba wa suba la gina suba lan ngay xaar ci ñom limay xaar moy face à face bu neex grandeur ñu lekkante ci làmmiñ waxante buñu jappante tekkonté pour affaire bi neex mais ñi and ak mbeur yi nañ dal ñoom bëriwul kenn invité wu pour ñuy ñëw di xuloo ko xeex ak ñaayoo. nañ bàyyi xëppatee non nañ bàyyi tafaatin defante ak ki nga xam ne nii moom mooy Balla Gaye ñoom ñaar la mm-hmm. concerné. Mm-hmm. nañ màgg bu tuuti ci seen xel bañ a joxati tamit waa làmb ah liñ leen di jiiñee ay dof ngeen ak ay liig loolu yëpp suñu comportement la. waaw baat boobu dañ ko war ah ku ju xas lamb ne itu lamb ay dof lañ loolu ku ne waa lamb dañ ko war a bañ donc lañ ah. comportement rawat rawatina bés yu mag yi nga xam nit ñi dañuy di xaar ci ah ñi ànd ak mbëri dañoo war a gën a am personnalité gën a am dignité merci beaucoup war a mbër mi li mu mënti doon mbër mi gënu leen mbër mi nit la bu am personnalité bu am dignité rek day ah, ah, non man continuer ba nga tëj ba beneen yoon waaw foo ñu xam loolu rek ci rek xam te wax ak gars yi nee naa leen ki lay jox ngay lekk mënoo xëy di tëfle ci loxom gars yi li ngeen di consommé ci làmb alaaji Fadam mi ngi leen koy jox ci laay fam yéen koy topp kon li laay war a toog leen ngeen déglu bu leen jaawale làmb leneen ak leneen làmb làmb la te ñu bàyyi attaque personnel yi yàlla mooy sàkk doomi aadama bu ne kon respecté leen seen bopp pour ñu respecté leen jaajëfatee am leen jàmm sama gars yi alaaj Fara. jaajëf coach président national maa ngi lay ñaanal jàmm bu baax. jaajëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf coach Bakary maa ngi lay ñaanal jàmm bu baax.